including comme secrétaire bu école am ñëw ngeen dama leen dama leen di wax parce que maa ngi fii bon du daw je vais mettre sa sa léegi euh, man je me présente Euh, man madame Diène directeur général de Axiom Construction Axiom Construction société sénégalaise la ñoo ngi liggéey fii ñoo liggéeyoon aussi ci hôtel Riu Baobab ñooy liggéey ci parc des technologie numériques à Diamniadio avec l'État ñooy liggéey aussi ci Dak Tower bi ci wetu palais de justice am nañ tamit benn bâtiment en face euh, wetu building entre building administratif ak pharmacie Mandela ñoo ngi bon léegi euh, maa ngi nii ak ay din kenn ci suma ingénieur turki moom lekkoon na ci hôtel Riu Baobab moom moo doon diriger travaux yi fii ak ci Béeru moom parc des technologies numériques la nekkoon avant ma ko fay jële di ko indi fii euh, ak sama yeneen gars yi ñu ci bëri nag duñ dara mais ñu ngi nii waaw. léegi nga ñëwaat ci prototype bi. voilà ma ñëwaat ci prototype bi léegi. lii bâtiment welcome center bi mooy prototype bu bâtiment yi war a ñëw ci ci ci ci Icon City bi su ngeen ko xoolee bâtiment bu xaw a étrange la bu xaw a futuriste presque bâtiment comme genre ci film fiction yi lay nekk mais Icon lii la bëgg Icon nee na daam man Sénégal dama bëgg loo xamante ni amul amul faneen ma ni ko amul faneen dina compliqué day gën a cher parce que defar bâtiment yëkkati def ci ay briques moo gën a yomb mais moom nee na lii la bëgg bâtiment bi su ngeen ko gisee nii liy feeñ ci bâtiment bi lu suulu moom moo ko ëpp parce que fii suuf bi tamit du suuf boo xamante ni dafa neex tabaxe ndax suuf bi dafay neewi donc soo ci tabaxee dafay fet mook suuf jam ñaajo ñooy am euh, boo fay tabax li ngay def ci suuf mooy gën a metti que liy feeñ léegi nag bâtiment bi su pare ba ñu def finition yi ci la liggéey bi yëpp di soog a mu commencé nu ñu koy nu ñu nu nu nu nu projet bi di soog a jël dooleem di jël vitesse am vitesse de croisière am jël na ay jël na tuuti temps yeex na parce que ni waroon nañ commencé ci période Covid bi Covid bi liggéey mënu woon am après Covid bi ñu defaat études yi guerre Ukraine bi commencé bi guerre Ukraine bi commencé ak Russie projet bi jugee ci neuf cent et quelques milliards. dem mille trois cent vingt sept milliards euh, donc. Euh, dollar wala CFA. non non. Euh, de de aussi. CFA CFA léegi simile <laughs> dollar dina bëri ah <laughs> lée léegi bon su ngeen amaatee yeneen question yu ngeen may posé parce que ni bon dinaa leen tontu li nga xam ni mën naa leen si tontu parce que ni man tabaxkat rek laa dañ may woo may tabax. léegi nag du ma dugg tamit ci loo xamante nii gëmuma ko expliqué na ma mais maa ngi ci réunion yi bu nekkee États-Unis wala ay techniciens wala ñeneen ñëw dama ci dama dama siy dugg mais projet bi ni mu ko gëmee laa ko gëmee. waaw yeneen yi des bâtiment yi voilà yeneen bâtiment yi am na beneen bâtiment témoin bu war a nekk fële ci cinq hectares yi am na tamit benn hôtel cinq étoiles bu war a nekkaat fii ci cinquante cinq hectares parce que site bi soo ko gisee. fi ngeen gisatul garab yii yëpp foofu yëpp terrassé nañ ko cinquante hectares la léegi mu am euh, kii bi euh, nu ñu koy waxee lagune bi après mu amaat yeneen cinq hectares léegi foofu sax ci lagune bi sax dafa war a am benn pont buy jóge fi jaaraat dem yéeg foofu benn benn benn pont léegi euh, loolu moom la projet bi di commencé mais projet yu mel nii su xasee bay commencé day bâtiment yi day tax dafa wax jukk comme ay champignon parce que ni soo boucler financement bi ba commencé bâtiment yi euh, xam naa ne du man rek maa ciy liggéey yeneen société sénégalaise dinañ ci liggéey peut-être tamit yeneen société étrangère mais Akon il tient à ce que ay société sénégalaise liggéey ko parce que ni day loolu moo tax sax mu woowam parce que début bi ay français ñoo fi nekkoon ay sud africain ay nigérien ak ay gars yu jóge États-Unis mais bi mu ñëwee que ni ci hôtel bi mu ne xool ne yéen comme man ngeen concurrencer société espagnole yi société eh, mexicaine yi ak portugais yi man ngeen liggéey ci Icon City bi déjà ñun on s'est bien concentré pour welcome center bi ñu structure bi génn ni nga ko architecte Dubaï bi bëggee woon pour mu xam ni vraiment fii ñu ko mën liggéey ñi ngi fi. kan ngeen pare seen liggéey bi nga wax. liggéey ban si bi ngeen war a def. bi ñu war a def. ak yeneen voilà. liggéey bi bii moom nawet bi moo ñu xawoon tàddeel parce que gis ngeen fii yoon bi neexul jaar donc yenn yi fi war a am ci comme voies pareegul léegi yeneen liggéey yi comme équipe bi dañ fi waroon ñëw au mois de septembre mais boobu ak hivernage bi mënul woon nekk ñu pousse ko nii ma le 6 euh, le 6 euh, janvier bu ay kon ñëwee ci la ñuy toogaat ñu toog définir mais nag du projet bi moom du projet bu gaaw loolu moom. jarul sax ay ma nëbbatu ma dem te ñëw projet bi c'est un projet innovant mais day jël temps parce que liggéey yi dafa compliqué dafa metti amul ay briques lépp ciment ak fer la lépp lépp lépp ciment ak fer la du du du yomb du yomb loolu moom mën naa mën naa leen ko wax léegi li muy jël ci xaalis bëri na parce que ni cinquante hectares yi c'est deux fois loté Riu Baobab cinquante hectares yi dix fois plus financement wu lii c' est dix fois plus financement wu hôtel Riu Baobab donc moo mooy li ma li ma li ma si mën Riu Baobab Covid bi moo ñu xawoon arrêté mais Riu Baobab mi ngi duré presque ay vingt huit mois. waaw yow wax nga sànq yow mbir mi sa bopp waaye comme na ngay tabax. Mhm. te ñu nguur gi daanaka euh, si à travers sa ko dindi nañu projet bi ci kii yéen deful lu mu leen def yéen en tant que tabaxkat. non déjà man bi ma déggee information bi jaaxal na ma parce que bi ma déggee ay bëye nekk foofu ak ay ay ay ay ay nag ak yooyu déjà zone bi sax bëriwul ay bëy euh, mais ni terrassé wuñ fa defuñu fa dara te man coono bu bu dul coono jinne ñu daj ko fii ñu commencé woon di fi liggéey ma ni bon je me demande ñi ñiy wax loolu peut-être doon nañ ñëw vérifier xool sax ba xam liggéey am na fi loolu laa loolu laa am na ma ci wax léegi nag diggante Akon ak état bi wax dëgg yàlla. loolu moom du loo xam ne man maa koy gérer ay kon fii ak mi ngi may liggéeyloo ma di ko liggéeyal après li ci des côté partie administrative bi y a une équipe dédiée boo xam ni ñoom ñooy gérer loolu. jërëjëf jërëjëf. merci. wolof. vas-y. ah fàttali ñu tur bi. Michel Diom je m'appelle Michel Diom chef de village de Mbodiène. Michel euh, projet Akon City bi xam naa wax nga ko ci waxati ci. bi la yoon yëg nga li xew mu xew maanaam état bi jàpp nañu ni. bi ne projet yi yéex na ci sax dana dindi loxo bi yow en tant que chef de village da nga gisee mbir euh, de village la mais depuis événement Econ Econ lu mu wax ak ñun mu ngi koy def lu mu wax ak ñun mu ngi koy def mun ne nii mosuñu am tolof tolof ne moom projet bi dina ko réaliser dëgg-dëgg nag mënul ñàkk parce que am na ñoo xam ne dañ siy ànd am ñoo xam ne duñ si ànd mais loolu ñun ñun waa Mbodiène yi gisaguñu loo xam ne Akon wax na ko ak ay nitam te defu ko loolu daal laa xam si projet bi ku nekk nag dégg nag wóorul mais gis moo gën a wóor te ñun gis nañ. yeexaayu projet bi euh, indi leen njàqare. yeexul. parce que soo toogee sa kër ba ñu la defal lii yaakaar na dañu ne ku la jox ndéki nga yaakaar su la la diggee añ nga gëm ko yeexul parce que kenn waxul woon ne fii ak kii fii ak presque ay dix ans la ñu waxoon te mu tagu ko moo tax nag yeexul pour pour waa Mbodiène yi gisoo gu ma seen lu yeex la jàpp nga ne dina leen jural njëriñ projet bi ah ñi yeewoo Mbodiène waaw ngeen ne dinañ leen jural njëriñ ah wooy ñun jàpp nañ ko parce que li mu wax yëpp si cahier de charge bi dëgg dëgg mën nañ ko gëm parce que soo gisee li mu def fii te wax rek la woon wax la woon te def na ko ak am am na yeneen yoo xam ne commencé na ko te wax la kon nag loolu mën nañ gëm le dina am njëriñ si dëkk bi. ngeen wax si nguur ah nguur gi nag loolu nag duggul suma nopp. dëgg loolu. dëgg gu ma ne nguur day nangu. ah. loolu loolu ab loolu ñu fi indi. am na. waaw ñoom contrat bi ah, loolu dañuy wax rek yaakaar na hmm? man xanaa dañuy wax xanaa mbaa parce que déggu ma ko. ah waaw ah, ngeen wax ma ko. ah loolu kay du yoon. xanaa balaa ngay def dara nga dem ci village bi laaj waa village bi. comme ni ñu waxoon comme dañu waxoon compétence transférée la kay ah, balaa ngay def dara nga ñëw laaj waa dëkk bi non non man man réunion ak SAPCO la amoon léegi léegi maa ngi nii wàcc si oto bi waxuñu la ci dara lu jëm ci loolu waxuñu ma si dara moo tax man ne leen mën na am mën na ñàkk am dara boofu xëy maa ngi nii door ñëw SAPCO laajal soo laajee am na ñoo xam ne oo nañ ma leen maa ngi nii réunion SAPCO mais waxuñu ma dara ah non wóoru ma nag parce que ñun amuñu contrat ak moom ñun daal suñu suuf lañu am rek. mën nga ñu ko defal français. déedéet baax na doy na ko résumé français rek. non doy na doy na. jërëjëf. tudd Joachim Jean-Marc Diouf man maa nekk le du centre des jeunes donc maa nekkoon aussi le vice président des jeunes ici à Mbodiène au moment de la construction bu ñuy tabax centre bi fii donc centre bi fii si Mbodiène donc ñun Mbodiène à un moment dañoo soxla woon bërëb bu mel nii donc euh, moom Akon bu mu ñëwee Mbodiène. donc avant même muy dem defi première pierre bi fële bu mu ñëwee waxtaan nag waa dëkk bi daf leen laaj lan ngeen bëgg donc bu mu joxee parole bi aussi jeunesse bi jeunesse bi waxoon nañ ko lii bëggoon nañu defal leen benn centre jour boobu noonu la jël engagement yi dina tabaxal jeunesse bi benn centre te ni mu ko waxee woon noonu la ko defee gis neen ko tey centre bi mu ngi nii taxaw na te defe naa ne amal na fi euh, jeunesse bi njëriñ bu baax a baax a baax. projet bi na yéen boobu ba léegi. Mhm. dégg ci Khadija ko dégg information yi ñu ne état bu Sénégal man je pense que ne loolu côté boobu noonu état bi dafa war a bàyyi promoteur bi mu continuer liggéeyam parce que bu continuer liggéeyam njëriñ bi ñun si ñun lay si ñun lay ñëw ñun ñu dëkk Mbodj ñun ñu dëkk si département bi ñu dëkk si commune bi ak Sénégal ñu ñëpp donc man dama dama dama yaakaar ne état bi da ko war a jàppale da ko war a gunge si projet boobu noonu parce que moom déjà avant moo commencé liggéey bi rek gis nañ li mu fi jot a def donc kooku bu commencé liggéey bi te am na yeneen yu mu promettre pour jeunesse bi ak yeneen mu promettre aussi bi te defe naa li yëpp dina ko bi war na ko mun a jàppale épaulé ko pour euh, li muy mbëbët ni mu mun a sotti. waaw yéex yegg bi à un moment ñu ñëpp xam nañ ne am na feebar bu fi nekkoon nest pas feebar boobu noonu boo xoolee retardé na économie bi yëpp. donc te aussi projet bu toll nii ñëpp xam nañ ne nekku ne da koy wax tey def ko tey am na étude yoo war a def balaa ngaa commencé. n'est-ce pas mu nekk si suuf seeg n'est-ce pas euh, dem uti ay partenaire loolu yëpp day day laaj temps donc yëpp defe naa ne aussi bokk na si la xamante ni dañ koy def ndànk-ndànk ba yegg si rek donc pour man daal na na ko état bi jàppale ñu mën a ñu mun a ñu mën a continuer liggéey boobu